ñu bokk ci patronat bi nag fekk si nañu ko lu jëm ci dialogue bi nga xam ne rek ña ngi koy wootee ma ngay xam ne nag ne képp ku ci dem rek violé nga constitution bi waxtaanub tëx nag lañu nar a gis ci boobee dialogue enquête yëglekaay moo ko daal di xamle jëm ci manifestation yi nga xam ne rek mi ngi jolli ci biir réewu Sénégal ginnaaw bi ñu tuxalee élection présidentielle yi ci biir yëglekaay bi waa Benno Bokk Yaakaar ña ngay àddu nag jëmale ci dialogue boobee nga xam ne rek jàpp nañ ne mëneesu la ñàkk ci jamono ji Alioune Tine nag di woote jamono jooju ci ab pacification coalition moom ña ngay xam ne ne nag ñu te yoon newuñu ci boobee la ko yéenekaay bi ne diggante aljuma ak samedi nag ñetti doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan ci ay manifestation yu ñu doon amal nag list ba ma ngay gën di yokk nag jëm ci ñi nga xam ne rek ña ngay faatu libération dellu siwaat ci manifestation yi nga xam ne rek moom la ñu doon amal yéenekaay bi ne ginnaw bi ñu ko tiiree bal ca kolobaan moom moo Gueye nag daa mujjee ñàkk bakkanam ginnaaw bi mu amee nag ab traumatisme traco abdominal ndax ab bal bu ñu ko dóor mu laal ca ba magam bu góor di xamle ci biir yëglekaay bi ne na jamono jamono ji nag ndax rakkam ji la fi dese woon ginnaaw bi ñu ñàkkee seeni wayjur Landing Camara ñaar fukki at ak ñett la am nag démb la ñu ko faat moom it ab bal la ñu ko tiire foofee ca Ziguinchor waa SAES e nag daal di soobu ci ab grève ñoom it ginnaaw bi ñu faatee nag étudiant bii di Alpha Yoro Tunkara maître Sidiki Kaba jamono joojee nag ma ngay ragg dërëb ñii di way takk der yi Mimi Touré nag di xamle ne daal lu ji njaag ci faatu xale yi nag moom président Macky Sall moo cay njaag waral muy sàkku nag ñu dakkal ci nu mu gën a gaawee faat gi ñuy faat ndaw ñi bugaan gay dani nag nag di woote ngir ñu gën a booloo te daal di jàkkaarloog président Macky Sall Bougane Gueye Dany yokku ci ne nag faaw ñu daal di amal confrontation jàkkaarloog président Macky Sall waaye du dialogue moo koy tax a jugee ca palais ba palais boobee nag doon nañ ko fa dalal moom Cheikh Niass nag delloo ko signalu Walfadjri PDG bu Walfadjri nag doon xupp ne bu fekkente ne nag ñu leen seen seenub licence dana fekk ji Macky Sall ca pale ba mujj na faa dem nag juróom-ñetti fan ginnaaw bi ñu coupé signalu Walfadjri daal di retiré seenub licence Walf Quotidien nag ne lu ñu waxtaan yoo xam ne rek Pierre Atepa Goudiaby Alioune Tine ak Amadou Ba amal nañ ko ci moom Cheikh Niass nag ma ngay xam le ci biir yëglekaay bi ne ginnaaw ay jàmm jàmm joojee nag moom la ñuy xaar ginnaaw bi ñu delloowee nag Walf Fadjri seenub licence libération Ousmane Sonko ak yeneen i détenu politique laas yëglekaay di xam ne ne président Macky Sall mi ngi ci yoon woyofal mbir yi nag ndax ci jamono ji nag ab loi d'amnistie nag la ñu bëgg a taxawal ngir mën a dakkal nag lépp loo xam ne mooy fitna yu ñuy nemmeeku ci réew Sénégal te jublu ci ay waxtaan ngir mën a amal présidentielle Sall ma ngay amnistie loolee nag moo gën a fës ci xëtu yëglekaay bi di Le Quotidien miy dellu siwaat nag ci féexal gi ñu fas yéene féexal ñi ñu tegoon loxo ci manifestation yi fi amoon ci weeru mars ak weeru juin yéenekaay bi ne projet de loi bi nag daañu ko waxtaanee àllarba ji ci conseil des ministres lu mu ci mënti doon daal ci manifestation yi nga xam ne rek doon nañ ko amal fan yi yëpp nag ngir ñaawlu tuxal gi ñu tuxal élection présidentielle yi docteur Mamadou Diouf nag ma ngay joxe ay dëggam ci biir yëglekaay bi di Sud du Quotidien yër leen bi la yëglekaay bés dëgër yi nga xam ne rek moom président Macky Sall ma a gën a si nag di xam ne ni daal boobee dialogue moom duñu ko wuy ji tey duñu ko wuy ji ëllëg ci biir yëglekaay bi bi di woote daal xalif général des Layènes nag ma ngay àddu jëmale ci kaw woy politique yi nag ma nga xamal nag ne warta dugg pale mbaa ngay génn pale di jaar ci kaw ay néew toog leen ngeen waxtaan ba déggoo ci kawi kàddu ngir njariñal Sénégal ndax lii lépp ngeen di def nag du jëm li dul tàbbil réewum Sénégal ci guuta démb la ñu doon dar képp nag lu jëm ci téeméer ak ñeen fukk ak ñeen tellu pa wooteb Seydina Limaamu Laay almax njiital CEDEAO nag ñu ngi koy xaar tey jii ci biir Ndakaaru jamono joojee nag Le Soleil yëglekaay dellu siwaat ci final bi nga xam ne rek mi ngi doon dox ci diggante Côte d'Ivoire ak Nigéria ñeel CAN bu ñaari bal ci benn éléphant yu Côte yi nag jamono jii ñoom ñooy champion d'Afrique daal di am seen ñetteelu étoile ginnaaw seen victoire bi ñu am